mu xasida goo xam ne xasida gu am am solo la ci wane eh, niveau sëriñ bi ci loo xam ne daf koo dagg wàcc waaye ku ko mën la muy alxasal ndax eh, dafa wax ne boromam aar na ko ci wax lu amul aar na ko ci ladayka سعادتي fil azal ya man kafani al fira ma al ghazal xëyna yoyé cey am ci ghazal taxna serigne bi dudd ko ci ca baxu am ci histoire la jubla wax xaside gi serigne bee ko bindon ci at mo xamne ne tudal ko ci xaside gi ndax دفعني وله أيضا زيد فيضا في شهر المولد مدهوه صلى الله عليه وسلم عام أحد عشر وثلاثمائة وألف في وطنه توبا حرسها الله كون سيرين بي موخ البابام دات بي ما نم أتمي مكو بند موخ البابام فمكو بند توبا لكو بند عام أي سشين لكو بند موي جوني أك نت تيمير أك فوكك بن كخمني من نيوخني أم أت دوخ ديغن تقاسي ديغي أك سين توكي تيغي xasida gi di xasida goo xam ne sëriñ bi leeral na ci lu bare bare bare bare bare bare bind na ko it ci baxrul basit ci baxrul basit la sëñ Tuubaa bind xasida gi innal basita ladayhi yubsatul amalu mustafilun failun mustafilun fail محمد سليمان بصرف عن مزياتي كيما تقود زمامي للرزيات sëriñ bi leeral ci lu baree bare baree bari rawatina ci eh, jigéeni àjjana ya nañu mel ci melal leen ak lan mooy seenu can diggam ak yenent bi ak nan la ko joxee boppam tagg ci alxuraan tagg ci yenent yeeg maqaamam Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam wane ni nga xamee ne yenent yi jiitoon lépp lu ñu am rek ñu ko amee ci darajay Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam Eh, xamle ne it maam yenent bi ci yenent bi lañu amé maqam ajdaduhul fudala matu bihi wa hawa bihi min allahi fawzan bil ijabati yoy yep mo ngi ci bir qasida gi nga xam mom lañu fasiyene jangat tay jàngat taala señ be ko tambalé ci turu boromam ndax yenent bi wax na ne lepp lu nu tambalé te tambalé woon ko ci turu sunu borom lu dok la ci ak yermande yalla walahu aidan muy bismillahi rahim walahu aidan zida faydan fi chahril mawlidi madhu sallallahu alayhi wa sallam ndax sëñ bi dafa wax ne lahu tazamtu lahu fi kulli ma sanatin daynam tidaahin bi abiyatin xaribaati waa xadil tazamtu lahu fi kulli ma sanatin daynam tidaahin bi abiyatin xaribaati war lool naa yenent bi alayhi salaatu wassalaam at mu jot danaa ko jóor ay xéegi tagg yoo xam ne bor laa ko jàppee yu tege ci sama kaw waaye danaa ko jóor bayit yoo xam ne yu néew luñ koy dégg la wala loo xam ne kenn mësu koo dégg ñu wax ko ko moo tax mu ne lii it ñeel na yenent bi yàlla na nu ko dolli ak bëbb lii nag ñeel na sëñ tubaa jëm ci yenent bi alayhi salaatu wasalaam ci weeru gàmmu la ko ko waxee woon kon weer wi it wax na ko wax na ko moom sëñ Tuubaa weeru gàmm la woon 1301 la woon 1310 la woon 11 euh, bokk mooy ndax ay sachin mooy 1311 mu ngi amee woon it Touba waaw yooyu yëpp sëriñ bee ko wax ci biir xasida gi madahuhu sallallahu alayhi wa sallam ama ahada achara wa talaata loolu wax na at mi fii watanihi Touba wax na fa mu ko bindee xarasallahu na ko sunu borom sàmm moom Touba bi jaaxil moom doxi ci barkeb ki ñuy tagg ki sallallahu alayhi wa sallam daal di wax turu xasida gi jaalibatul maziyaati la ko tuddee wa daafiatul raziyaati fi mati xaril bariyaati jaalibatul masiyaat mooy liy wommat liy bijji may yi wa daafiatul rasiyaat liy jañ caay-caay yeeg yàqu-yàqu yi fii madhi xayril bariyaat yi ñu ko soobee tagg yonent bi alayhi salaatu wa sallam hamad suleyma bi sarfi an maziyaati kay ma taquuda zimaami li raziyaati siñ bee nga tëgg xaside gi tàmbale gi ci jël turu ndaw suñu wax Salma ndax araab yi dañ daa def loolu ci seeni wëy jël turu jigéen ngir attirer attention yi mel ne kuy léebu mel na mbir te fekk loola taxu koo jóg ñoru ko waaye leneen la la bëgg a wax waaye daa bëgg nga bàyyi ko xel rek mu def ko genre benn seen bu muy monter sëñ bi indi na ndaw suñu wax Salma mel ne dafa taxaw moom mu am lu mu dëgg dëgmal ndaw soo suñuy wax Salma ah, bëgg ko koo yàqal di xol lo xamne japp na ne bëgg na ko moo koy jor ngir bëgg mu mu dëgmal ko wan ginaaw la la nga xamne ne ñor na ko sëñ bi di diko xamal ne lool do am xammat amna yitte wala yitte wona sulayman daw suñu wax sulayman bi sarfi ci deddu lo ma am walis ay may yo xamne yu màgg la lan motax mu def ko kayma maa zimami ngir mo wamat sama nos ko guru li raziyati jeme ko ci tay tay abdat feeñ na fes na li tasdaata qalbi wala abdat fesal na xos na bax jatiha taaruk rafetuk taaram ba li tasdaata qalbi ngir mu rëbb sama xol wa wajjahat lil hadaya mu jamele ci man ay addiya bil mabarraati ca mbaax ga wala bil mabarraati ca may ya amsat mujj na mu wala gont na mu tu tayyibu nafsi di teeyal sama bakkan kay am ila laha ngir ma jéng jëm ca moom waxaawalat mu jéem ay yooni yoon may laqal bi jéngal sama xol lil hadiyaati jëmee ko ci addiya ya muy jël di ma ko jox waxaatabat nii muy waxanteeg man bi maa yadu ci loo xam ne day bijji jëme ci li xitbatiha ngir labat ko waa azharat mu may wan sidqa waadin sincérité di ma wan ne ku dëggu la ci lim may dikk bi raxibaati ci ay xemmemteef tawra yee yeesaa yi wala tawran lu baree bari te jii nii mu may dikkal wa tuuli nii di ma sotti jawaisaha ay kadoom ay mayam ay kadoom wa taarata yenn saa yi liy tox di bil busharaati mu ñëw sotti ma mbégte di ma wan mbégte di ma jox di ay mbégte laakin waaye ànd ak loolu yi muy def lépp ci pexe alimtu man ahmadu day xam naa wa ilmi te xam gi ma xam day saw fa yan nii xalset na maa jëriñ bi annaha naka moom ndaw soosu zaatu may nin aji wax lu amut la fil maqalati ca kàddu yooyee mu yëkkati di jëmee ci man ca discours yooyee mu may tenir rek kaanat nekk na mawaacidu orqubin diggu orqub ya laha ñeel ko masalan am misaal wa ma mawaaciduha te diggam yooyu mu may dikk xayrul xiyaanaati du dara ay Orkob dañuy wax ne way la jo xamni dafa am kum mayon ab ay garabu tandarma ne ko mayna la ko koko dem bëgg ko bëgg wat tandarma ja xeyna da ko wax te fek agut ci xolam rek wala ay ngistal taxon ko ko wax ba saway beug witti ci tandarma ja mu ne ko bul ko witti ci bayil bam tortor saway Bam bam tortor ba mu ko bamu ñor mu bàyyi bamu ñor bu bëgg ko witti ji mu ne ko bàyyil ba mo yomb saway bayi ko fa ruqub jaar ca gannaaw wat watt tàndarma jépp guddi saway ñew fekk ko fa dara kon koko digga ko don dig tas yaakaram señ tuba nak ne Salma mi day dige mi muy dige ku ko topp moo ko ruqub mu lay dig do ci gis dara aduna lay waxa laysa turi safa du la ak illa qad arat kadara ludul ne ca gannaaw sel goge dana la won nakh nakh. min baadi ca gannaaw ga watu daari muy mu daaranteeg yow bil makki daati ci ay pexe rek wala turin nafa du la wan njëriñ mukk illaa adxalat dara lu dul rek lor lorang ca biir mu mu naq ko ca fii ca biir wattu du miru muy làq di nëbb xëdd man ak alkane fil maunaati ca e, ndimbal ya faujtu ma jàdd wëlbati ko anha wan ko gannaaw ilaa mallaahu yu duqilu nii wan ko gannaaw jëm ca la nga xam ne ca la yàlla di dugalee bii ca loolee jinaanan ay ajjana joo xam ne xawat làq na xuuran ay jigéen xuurul ayn yoo xam ne seen bët ya dañuy rëy weextal wafiyaati ñu am kóllëre ñoo xam ne duñu war duñ la dig tamit di eh, fausé lañ la dig xon na ñooñee nga xam ne ñoom laa dëgmal wan salma gannaaw alxawaani ñooy jànq ja nga xam ne allawaat yi ña nga xam ne laatukaa fi oha du méngoog ñoom mukk kenn du ko kenn du leen tëkkaleeg salma salma waxin dun deefu leen tëkkaleeg hind wala ilaa deefu leen tëkkaleeg layla ful xari daati ci xiya xon na ñooy ña nga xam ne alxawaani ñooy jànq ja nga xam ne allawaat yi ña nga xam ne laa yafuusu biha du leen du leen am mukk du leen gañ a mukk illa lazi ku dul ka nga xam ne is daana bi taqwa ragal na yàlla takkaayoo nag ragal yàlla bi taati ci topp boromam hunal xawaani lawaati ñooy jànq ja nga xam ne ak dëxëra diirub jamono maaki satun ña ngay sax fi ma laha la nga xam ne ñeen leen min xiyaamin ci ay xayma wasta jannaati ci digg àjjana xóorun na ay jigéen lañu xóorun ay yoo xam ne la dallahi fa yàlla laa yuqa aynun laa yuqaaribuha du leen jege mukk muy xóorun aynun xaydun duñu gis réegal du leen jege wala dara nun taq ak tilim du leen jege daamat dañuy sax naqiyaati di way sel xuurul xuurul ayn ño xamné la dallaahi fa yalla sen borom atraabun ay mas lañuy ñuy doon muqaddaratun ñoo dañ leena mur taxtal xibaar ci ron xayma ya minal busa ci wañse salimat añu muccu lañu ñu muccu lañu ci sonu ak yu ni demee fuqnal xanaa raw nañu ay lamp nuran nuran ci leer tibuha sen parfum ya abiqon day gilli yuqjilna badra yadin dañuy ruslo wer wo am fukki fan ak asaman ci aw asaman yadin gi fukki fan ak la waye tekkiwut loxo foofu tawriya la ndax yaagi fukku la dal gi ñent la ndax wer bu tollu ci fukki fan ak ci guddi ci eh, am ko ci asaman day leer nañi fawqa samawati ge koy leral moy xarina lahunna na len ñom eh, jigen ñu aljana ñoñu gis mun yaram woo xam ratibun wu ratax lay doon khalisun wu sell xadirun wu natax daw ut taraibi leer mas ga lañu jaalen aji wuññi du junnaati ñeel lëndëm lëndëm ya miratu azwajha sen setu borom keur ya abdanuhuna moy sen yaram ya sen borom keur ya duñu wuti setu day sen yaram ya lañuy seto naam waaw waaw is ngir nuuru abdaniha sen leer yaram ya usur yi day xeeb as siraajaati làmp seen leer yaram ya leer na ba xeeb làmp maama saxun na mësu leen a laal la dum zul arsh anshaha baleen sunu borom sosee ba jonn yàlla tey shay un dara minal wasmi ci gàkk fi wasfin ci seen melo wala zaati du caa ci seen jëm wala say bu xëy na du ñu sàkku mukk bil azwaaji ciy jëkkër min badalin ci so ci ci ci ab changement ab soppi ko ndax jigéen aljana yi mën nañu am borom kër ba yàgg ñu gis ku ko ëppale nangam daal di fexe ba cokkaas ko tas dem ca kooka nee na ñuy jëkkër ju leen yàlla jox doone leen duñ sàkku bàyyi kooka dem ca keneen te am leneen wa bahjatu nuuri seen taaru ba ñu am ak leer ga ca seen kanam ya tan mu day màgg ku la saati waxtu wu nekk boo génnee ko fa boo day mel na doon nga moom nga fi bàyyi woon ndax da ngay fekk mu gën rafet te jigéen aljana seen taar day gën a wàññi ko waaye du gën a yokk wala yesal na duñu deñ mukk usaara di ay jànq indahum foofee fa ñom abadan ba faw ci sen ci sen jëkër ya nga xam dañ ay jank rek la sax di doon akrim bihin nakawti fu sen tedd nga xaridaati ci ay xiig safiyat yu sel wala ser duñu mujj mukk ila mawtin ci de wala harmin duñu magati bal li fi nek la yasalna duñu dañ mukk muqimatin di way sax muhibbat di bëgg seeni borom kër hunnal lawati al qalbu biha ñoñu day ñoy jànq ja nga xam ne ab xol sedd na ci ñoom xel dal na ci ñoom yaxtaaruhunna ala salma waxin daati nee na def na leen tànn ca kaw salma ak ay xinde xal suñu xol tànn na leen gënalal gënale leen ca kaw salma ak hinde wa mahruhunna mel na dañ ne ko mbàkke ñooña ku ca bëgg a jot ana na nga ngay def lan mooy doon seenug can xanaa war naa seer sëñ Tuubaa ne wa mahruhunna seenug can day ittaqaullahi mooy ragal yàlla faatiriha yàlla ma nga xam ne moo leen sàkk ci njalbeen bi taw ci dem tuubi say bakar mooy tax ndaw euh, ñooña nob min hawa nafsin ci bànneex bakkan li taati daal di daw wëq wëqet jëm ca topp yàlla bi tawbatin ci tuub wa bi ak ci ak jël say cër saxal ko ci lislaam ilaa malikin jëm ci buur ba nga xam ne xat jaada bil Moustapha moo jox Seydina Muhammad alayhi salaatu wa mi nga xam ne moom la tànn kansil bariyaati kii ndaxañteefu mbindeef yi kon ci xaaj bu njëkk bi ñu yem ci foofu incha allahu taala des na leen indil xaajub ñaareel bi